لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله الشيطان الرجيم نيوات beneen yoon sëriñ bi دي زياري دي fedd li kóllëre gi nga xamne moñu takki ñun ak yow dara taxul ñu koy def gi nga mbëggeel gi nga xam ne moom lañ am ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass jaaree ko ci suñ bunt muy Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass nekk mbëggeel goo xam ne tàmbali nañ ko waaye xamul fan la yem si ñun nag mu ngi poussé waxtu wu nekk rek ñuy jéem a xencu mbaax lépp luñ gis ne góor yu mag yi daan nañ ko def te muy jikkoy Cheikh Ahmed Dame ñu ngi ciy jéem kent lay kàttan sa lañ man bëgg nañ daal waxtu ngeen gessoo donte yéen a ngi raw bu ngeen geesoo gis ñu ci gannaaw ndax ñu mën leen a dab si loolu nag moo waraloon tey ñuy jéem a barkelu comme ni ñu koy defee ndax daan nañ ko def ci teewaay yi ñi nga xam ne ay dëkkandoor lañ ca koñ ba daan nañ gis ne at mu nekk rek daan naa xencu mbaax di def yitte donte man-man yi demeewut noonu pour wërsëg wi jaar suñu loxo ñu bokk ko jàmm yàlla yi donte liy ñëw si sama loxo yëpp nañ ko jox nit ñi ba mu jeex man ma dem uti man moo ma gënal te loolu nag ci yéen lañ ko nàmpee biñ gisatul Cheikh Ahmadou yow lañ gis te loolu mooy sa jikko loolu nag waraloon tey jii ñu ne nañ jéggiwaat beneen tànk naam ñu ngi ko doon def mais fii la waroon a nekk tàmbali bi waaye nag xëy na yéen waxtu wu nekk dafa am nu ngeen di xoolee li ngeen di xoolee mooy daw ci suñu roxo gi ba nga xam ne ñun fa la ñu jëm xëy na looloo waraloon tund wañ nekk di ñu nekk fa pour dundal ko pour feeñal màggal gi ñu màggal juddu yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam tant jënd ay nag jox jaamu yàlla lañ man ci suñ kàttan muy nekk alal joo xam ne alal ju ñu lew la waaye nag ci seen tëbb lañ koy defee moo taxoon ma ñëw nag tàmbali ko waat ko tey ci yow feddali suma diggante ak sëriñ bi mu Cheikh Ahmadou jaaree ko sa buntu te xam naa cofeel gi nga am ci man xam naa it bët bi nga may xool xool gi nga may xool wane wun ne kii suma taalibe bàyyi rek yem ci danga maa jël def ma kon sa taalibe fonk ma di ma nemmeeku ci njub lépp loo xam ne gis naa ko mu nekk njub rek yaa ma wax ne danga ci noppi so noppeetu rek dama nekkul ci dara motax dama am sañ-sañ ci lu ne loolu ma waral tay ji ma ñew pour ziaral waat yoon pour indi suma adya tambali ko nak dama man rusna tambali lu baax ba pare di ci deltu gannaaw lo da lepp lu may def rek dama koy nat ci suma yeg yeg su deppok lo xam suma ko tambale bu ko roxagi di fekke dana ko def inshallah taala motax ñu barki barkilu won nak mu ngi ci biti indil lako pour nga ñew ñaanal ñu yalla ndax gis na ñaan yi nag daaw bi ñu ñew ño andon ak ñi fi ñew nga ñaan gis nako lañ dénkante li ma ciy def wax naa la ko bimbu mbitt yéen nee naa dama la la war di la jox du d'auteur ndax yëg-yëg la nag te yëg-yëg gis naa li may servi gis naa li may jëriñ ka sa yëgut nag moom la waaye man mi ko yëg bu ko di ko dund xam naa ni mu toll ci sa yaram seddut ndax wax nga ma ko waaye ànd ak lu mën a xew rek barkeelu sa ñaan barkeelu say nokki jar na lu ne waaye nag ñu ñaanal la yàlla man daal su ma la déggee li may njëkk def mooy Cheikh Sidi Habib yal na la yàlla may guddal sa fan barkeel say yëngutu ak say dal su ma ne la aloo sax duma du ma bëgg sax ñu jàmmalante ñaan rek parce que nga des fi njëriñ la si ñun te njëriñ la si umma islam bi sax nga suñ biir yal na yàlla bàyyi la suñ kanam ba ci kanam ak kanam loolu daal mu li ci des mu ngi noonu sa kàddu la <laughs> ok ba alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidul anbiyaai wa sayyidul ahyaai wal amwaat سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله تبارك وتعالى عن خاتم الأولياء سيدي ومولاي الشيخ عمر التجاني أبي العباس وعن خليفة على الإطلاق مولانا الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم أبو المكارم وأبو الأخلاق gannaaw sante yàlla julli ci yonente bi ñaan yàlla gërëmoo ñu suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane ak Mawlana Cheikh al Islam ñu ngi leen tatagal ci buntab sheikh Ahmad Ibrahim di leen tatagal ci buntam di leen wax ne bët yi ñu leen xool bëti Mawlana Cheikh Ahmad daam la tey dafa mel ni dafa génn ci xabaru di xool ay nitam di xooli seeni jëf waaye xam naa ne buy xool jëf yi ba agsi ci seeni jëf dafay kontaan ndax lan li ci xol yi moo tax Cheikh Mohammed mii li ci xolam yaakaar naa kënuma koo xam xam naa bu baax li ci xolam lu baax ak def lu baax ak jëf lu baax loolu rek moo nekk ci xolam mel ni la daloon sëriñam daf koo dal kaani kaana yenwil xayra law kaana muxsira waaye mu ne yéene woon na di def lu baax di leen jëf ji dafa gàtt dafa tuuti Cheikh Mohammed am na loolu doonoo ko ci sëriñam Cheikh Ahmad Daam doonoo ko mu doonoo ko ci baayam sëriñam Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu maa ngi koy tatagal te su ma ko tatagalee rek tatagal naa mboolem ku àndat ci mboolem dëkk yi waaw ci Kaolack ci Ndakaaru ci Saalum ba ci penku ñëpp maa leen tatagal ndax Cheikh Mouhamad dëgg la nit yi yàlla la nit yi kurus la waaye nag bu kurusam amee lijaaba rek ñi mu la ndax tey su fekkoon ne dafa am li jaaba te kenn toppul ci gannaawam konoon amul dara su su ñëpp toppoon ci gannaawam it te amul li jaaba amul dara waaye alhamdulilah bi nga xamee ni nit ñi topp nañ ko am na li jaaba bëgg ngeen ko te man xam naa ne bëgg ngeen ko te yàlla tax te xam naa ne yàlla rek ngeen ut ci moom te bu ngeen utee ci moom yàlla dana dangeen ko am sëriñam Cheikh Ahmed daf daan wax waa Mbitee ne lu ngeen ut ci man lu dul yàlla rek perte ngeen ndax man àddina ak nit sëriñam ma ngay defal taalibe nangam loolu man du sama mbir Alaaji Abdoulaye daf ko daan wax ne yow Cheikh Ahmed dama uteeg yow waaye yow it dangaa uteeg sa rakk Cheikhu ci ay jiko mu ne ko gis nga man Alaaji Ablaay mii lépp loo gis ma di ko def rek xamal ne man naa ko te xam naa ko duma dugg ci lu ma xamut duma dugg ci lu ma óoruwut mu ne ko yow Cheikh Ahmad moom yow moom yaa man lu ne ba pare li nga man yëpp nga tayal ko <laughs> waaw man nga lu ne loo xam ne ñun sax mënuñ ko waaye yëpp nag nga tayal ko mu ne ko Cheikh Tidiane moom foo ko fekk mu ngi jéem a enu loo xam ne uur na leen àttanu ko waaye dina bëri ba enu loolu mu ne ñun ñett ñii nag yàlla ñu boole woon ci suñ jamono baay moo tax ñun ñett ñi suñ boole suñ jukko yooyu benn nit la ñuy doon muy Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu euh, Cheikh Ahmed ma sa ci lu mu ñëwawut keroog ba muy rëdd jumaay mi teen bu njëkk ba Alaaji Ablaay dafa am wax bu mu wax mo andi jumaay dembu ji sax ndax daf ne ahmadu mi li muy rëdd ni ñemena wat ne parena na waaw Allah, <laughs> wax mu ne rëddaguñ ko rewaye ñemena wat ne ji parena na ndax ci lu dugg rek da fay soti sot, nak li jabam la nit ñi dañ ko daan dikkel ci walu israr ci lu ne man xamna ci lu bari ndax lu bari daf ma ci daan xir xamna daf ma doon jangal ndax maa ngi seetlu benn waay boo xam ne dafa mas a feebar alaaji ama xadi sekk mii waa ji ñëw ci moom ne ko man de damaa bugg yóbbu ma si sañ daam xam naa ne su ma demee su ma ñaanalee rek danaa wér mu ne ko loolu ki aw ma ci sikk nañ dem waa ji muy dem dañ ko téye ci ñaari loxo ñaari nit a ko téye dugal ko dukkat ko ba ci saalam yi fekk sëñ bi mi ngi tëdd ci suuf bëriwutoon lu muy tëdd ci koow ci suuf la daa gën di tëdd mu ne lii lan la laaja man ne ko ah, yot nañ la de kii de yow lañ ko indil te yow lañ ci yaakaar te bëgguñ mu génne néeg bi eh, génne ni niñ ko dugalee fii bëgguñ mu génnee ko néeg bi Cheikh Ahmad ne <coughs> laaja Ahmad ah yow li nga wax rëy na de man daam mu xew mii yaa ngi may tooñ de <laughs> mu ne ko li ma wax daal xam naa ko mu ne waa baax na dem leen jënd xar mu weex ngeen indi ko ñu dem jënd xar mu indi ko mu ma defal nangam ak nangam nga tafli ko ci nopp xar bi bind nangam jox ko xar bi mu naan ma def loolu jox xar bi di naan mën ne alaaji alaaji amat mu ne ko ñes mu ne ko waa ji ngeen wax ne dafa feebar na jéggi xar mi te bu ko kenn téye wallaahi raas na jéggi xar mi te bu ko kenn téye te bu jéggee xarme nag bu mu taxaw na dem <laughs> wallahi waa ji dafa jéggi xarme rek mu mel ni tànk mi dañ koo lemoon dañ koo eewoon ñu tënki ko eewu mu dem kooku muy dund ba léegi yooyu def na ci lu bari eh, te dafa suufeeloon boppam te yàlla tax soo gisee naar yi bëgg ko fonk ko naar yi dañ koo xam saa am benn bés ñu dem Nouakchott benn naar ñëw xale la ne ko sëñ bi man day dama lay poñe tey jëkkër laa bëgg waaw mu ne ko dama la nekk seen yëpp ndaw si dem enu néegam ba enu farasideer ba indi ma ko yaa ayyuhal lazina aamanu yaa ayyuhan naas taqu rabbakum ba ci raqiban bindal ko ko wallahi mu ko naan ko fii nga toog te yeey kayit gi mu naan ko rek téléphone sonné billahi alladi laa ilaha illa téléphone sonné ñu oo ndaw si ne ko ñi lay takk si ñi ci kër gi toog di la xaar loolu Cheikh Ahmad def na ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen naar yi bëgg ko bëggeel goo xam ne du bëggeel ak caaxaan ndax naar du bëgg nit ci keese naar ku bëgg rek intérêt ma ngi ci yow waaw baay mii naar yi dañoo gis ne njariñ njariñ seen njariñ dafa nekk ci baay rek moo tax ñu topp ko waaye naar naar du toppe bu toppee rek am na lu xew ah, moo tax moom dafa doon nu bàyyi ci lu bëri waaw ah, bàyyi daanaka wax na ko yow yaay suma mbóot loolu moom ñëpp xam nañ ko ñëpp dégg nañ ko alaa jab laa def laa wax ne lu leen réer ci mbóoti bàyyi rek laaj leen ko sëñ daam wax na fii ñépp toog mu ne maa ngi gën ci bàyyi ñëpp te man alaa jab du may génn ci caaxaan hmm. ahmadu moom a gën a mën a gàmm <laughs> dafa bañ rek waye moom ma gën gamu mën a gàmm ndax lu ma jàng maa ngi moom ñoo ko jàngandoor te momay ñëk mokal kon loolu firnde na ne lima xam yëpp xam nako waye nak dafa bañ bàyyi daana ko wax loolu ndax bay mu ne dafa aji mak. mu ne bimu aje mak ba wër kaaba gi bu gis yonent yalla muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. yonent bi nako sa doom ji ñi wax ahmadu bu ñaari at la sa doom ji ñi wax ahmadu mun naa mun ne ko jël naa benn bëtam bi waaye weccee naa ko xam-xam noonu rek moo ko daan fab bàyyi limaan ko fab ba mu yàgg muy sax benn socc socc bi gis na yonent ji waa Ahmadu te nga ko jël naa benn bëtam bi waaye weccee ko xam mu ne ba ni mu baay mu ne ñaari ñaari ñaari baat la ko bàyyi mu wax mu ne su ko xoolee rek ne ko hey Ahmadou ana xam-xam bi ma yonent bi wax mu ne ñaari baat la ko bàyyi mujj wax ana xam-xam bi ma yonent bi wax ak ana Seydi Mouhamadul Habib muy man mu ne ñaari baat yooyu rek mujj dégg ci bàyyi kon jëmm jooju ku ko bëgg rek yàllaa la ko bëgg ndax du loo gis ci moom ba di ko bëgg ndax du loo ko won keroog boo ñëwoon pour feeñu pour nga xam ko keroog la lay gën a làqatu kon ku dem ba bëgg ko comme ni ko Mouhamad Dieng mi bëggee jël yëppam def ko ko ku am loolu rek dafay sant yàlla moo tax man dama ko ñëwee ci bëggeel googu mu bëgg ànd ak nag ñu ngi rëj rëjoo ak moom ci bëggeel googu ndax ñun wallahi maa ngi gën ci bàyyi ñu ne dëkk bii dama tàggu sama baay ba léegi fu dul néeg Cheikh Tidiane Cissé wala néeg Maay Cissé mos ma fee dugg ndax soxla kenn dara waaw ndax dama toppoon jëmm joo xam ne dama ko liggéeyal ba nga xam ne billaahi dem na ba wax ma ne ma Habib ma ne ko ñes ma ne ma nañ dem rek ma ne ma lay waatal ci baay ma ne ko ah, ne ma ba yowmal xiyaam ku la mbëkk dina daanu yow koo mbëkk mu daanu lii dégg naa ko ci moom jëmm la joo xam ne surtout xilaafaam yëpp daf koo noppi soo ñëwee yaa ngi koy fekk ci laal bi parce que ñu ko sëñ bi mun naa ma ne ko mën daal da sa feebar bu daf maa jaaxal ndax ñun dem nañ fu nekk dem nañ ci sëriñ dem nañ ci docteur dem nañ ci faskat dem nañ ci borom rel yi dem nañ ci fu ne lu ne indil nañ la ko dañoo bëgg nga wax ñu lu ñu dal mu ne nii feexe ba toog ne ma si ne ko am ah, mu ne ma dara dalu ma wallaahi ne ma dara dalu ma mu ne ma xam nga lu ma dal ma ne ko am ah, mu ne ma. wuutu alaaji Abdoulaye rek dafa doy ñu bëgg la cee tegal baay <laughs> wallahi moo ma wax lii mu ne ma wuutu alaaji Abdoulaye rek dafa doy ñu bugg la cee tegal baay loolu rek moom ma jàpp waaye du dara hmm? kooku ku yàlla may nga bëgg ko yàlla may na la chance boo xam ne chance bu rëy la góorgóorlu ci moo fi ne ba léegi kenn ku ku fi ne ci suróom rek ngay dox waaw moo fi ne ba léegi waaw ndax kaana allahu laa shay'a maahu wa wala ana ala ma yàlla rek fi nekkoon bi fi dara newut bi lépp demee yàlla fiy des kon yàlla rek moo fi nekk Cheikh Ahmed rek moo fi nekk te ku weddi loolu rek jéemal dara ci sa mbir du sotti su ca bokkut du sotti bàyyi daana ko wax ne ko suñ daan fexe mbir mbir mu mbir mu jafee jafee lijjanti day wax naan xanaa Amadou yóbbu ko <laughs> su ñu ko yëg na ko mu ne kon mbir mi dana sotti waaye su ñu ko yóbbu ko de mu ne ah dama leen yëgal ko ko lu ngeen def te bokk ci du dem de te sotti de lu mu bokk de du dem de mooy moteur oto bi de bàyyi moo wax lii mooy moteur oto bi de lu ngeen def te bokk oto du daw te te moteur ñëwut oto mën naa am lu ne rafet taar bu ne taar bu ne oto mën na koo rafet waaye bu amul moteur rek du daw Ahmadu mooy moteur faylu bi. waaw wax leen ko tey ahmadu mooy motoori Mawlana Cheikh al Islam ahmadu mooy motoori diine l'islam waaw yaati min baadi yi ismu ahmad bàyyi dafay woy benn way nëbb way wi hmm? ne du jël kufur wa tuxyaanu is jaaha ahmadu mi ngi ci way bàyyi dem leen ngeen seet ah mu ne du jël kufur ku kéefar màgg na ma dana màbb waaw ak bew bew jeex na nga nako ko kañ mu ne isja ahmadu bés bu ahmadu ñëwee seet leen wax jooju seet leen fukki fan ya nga fukki at yi nga xamne mo la tok ci khilafam lu manki Medina xale Medina yëpp ci lañ doxé am am am ci la auto yu bëri ci la tabax yu bëri ci la bo bo doxé sax suusi sax jéq sax for khalis ci jamono parce sama wax ne ma parce sama wax ne ma Habib ma ne ko mu ma na nga jub rek mu ne ma bu la dara jaaxal mu ne ma gis nga xaalis lépp lu nit di def pour am xaalis rek xam naa ko wallahi moom wax lépp lu nit di def pour jóor xaalis ba mu fees ci sa koolal wala ci say yére wala ci say mbubu wala sa armoire xam naa ko waaye jaralu ma am na naar yu ma ko fi waxoon daaw dama ñun dañoo ñee ñi indi nag yi di joxe incha allah da ngeen indi tey juróom-ñaari nag lañ ma indi dama jëlee ñeent yi ñett yi nga seet lu la neex nga joxe ko. te loolu incha allah pour bëgg yàlla nan la ko defal. loolu yàlla na la ko defal. da danga dem bay dox ci xaalis. waaw dafa teraanga. wallahi dafay yokk waaye du wàññi. waaw naa la fi. xam na ama at moo xam ne. jàmbataloon nga ma benn waay. waaw kii lay def may xeex ci jale. Mm-hmm. suma gàmm. wallahi wallahi du la teree dem. jaaratu ba sax ma ne ko dana dem mhm. da nga dem moom mu des te ku ko gis dana xam ne dem na gannaaw te ba léegi liñ mhm. ci pay bi ku ko mhm. gis dana xam ne kii avancé wul te yow xam nga ci dara maa yow xam nañ ci dara <laughs> jarul maa yow xam nañ ci dara bu yàgg bi nga ñëw fii warloo ngoon ko fi oto ma jiyee ko fi dem faas course ga ba ma ñëwee waxtaan naa ak yow lañ ca wax ak yooyu yëpp mhm. waaye bi ñëwee ba ma essayé lañ ma wax ba ma ñëwee ci laa jënd oto bi dëgg la ñu dinaa ko ba fii fekk la nga yaañ ma la déet añ kay fu mu doon ni bala ngaa def mhm. kañ dem nga xool ko def ci liñ ci war a def waaw ba léegi nag mhm. yëg-yëg yoogu ak tëbbuwaay yooyu ñu ñu man dama laa bëgg te yàlla tax xam naa bu baax lycée bi léeg-léeg nga toll foo xam ne li ngay togg donte da lay ñoral sax waaye doo ci bëgg a teg sa loxo bi jege ji ak لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله